man maa ngi so tudd Kumba di nuyu nag ñëpp nag di wax ci Mbour 4 di wax rek ñun sonn nañu ñu ñu dëkkee Mbour 4 sonn nañu torop dañu bëgg président de la république dimbale ñu ndax fii àll la dëkk nañu fii lu nekk ngi fi feeñ ñax yi ñu àndal ñu dëkk Mbour 4 dañoo sonn ndox suuf yeeg yëpp ay génn fii bu guddee sa doom yi toog fii sonn yow nga sonn yor sa njaboot liggéey sa kër ba mu yegg ñu xëy toj ko ngay jaboot gisoo borom kër bu la dimbale nga uuf sa njaboot yor leen mitti na torop nga liggéey sa kër ba pare ñu daaneel ko at mat na ko deux mille vingt et ba ba léegi ba deux mille vingt deux gisuñu ku ñu jàppale. gisuñu benn koo xam ne koo xam ne nekk na ci gouvernement bi jàppale ñu gisuñu ko ñuy dawal suñu bopp ñooy daw ak ñooy daw réer ñoo daw ndékki man de man gisuma sama borom kër gisuma kenn. maa liggéey sama kër ba mu baax ñu ñëw toj ko te biir mbu mbir gi laa dëkk te loolu metti na torop ci jaboot metti na ci góor ñi rawatina jigéen ñi ñu bëgg autorité yi jàppale ñu aar ñu aaral ñu suñu fii ñu dëkk dëgg la forêt classée la ñu waxoon waaye bu ndox duggee courant dugg doonatul forêt classée dañoo dëkk ak suñu njaboot nan ñu jàppale te cëral ñu te xam ne ñun ci ci fii la ñu dëkk bokk ci Sénégal bokk ci dëkk bii bokk ci Thiès juddoo Thiès yaroo Thiès màgga Thiès suñuy doom dëkk fi ñuy gis nga nga toj sa kër yaay loolu metti na nan ñu jàppali képp ku fi taxaw fii rek am nga fi kër képp ku taxaw fii rek yaa ngi ak sa njaboot toogatoo jonkanatoo tiit nga ndax yaa ngi toog ci nen liggéey bi moom gisuñu liggéey bu dox commission bi man day gisuma liggéey bu dox boo xam ne doxal na kaat gi. collectif bi wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi def seen devoir muy Pape Cissé muy Libaas ñu nekk ci fii yëpp ñu ngi doxal seen li ñu war a doxal mais booy doxal nit ñee lay jàppale ñi ci suuf ñoo la war a jàppale ma defee yow ngay dem di digg ci di dugg ci gouvernement bi di wax yaa ngi wax di lancer sa message nit ñi di la jàppale waa léegi autorités yi bu ñu jàppale kan moo ñuy jàppale ñu amuñ keneen ku ñu jàppale. ñu ngi daw ak suñu doole rek di daw suñu njaboot xam nga ni fii àll bi ko ko gis xam ne lii dootu forêt classée lampe dugg ku ndox dugg lépp dugg nga ni forêt classée la te ñu tere ni ñu toj ñii dañ ñoo tere tabax dañuy dugg ci biir ci sit bi la ñuy dugg ko fi laal ñu daaneel sa kër waa léegi yow fan ngay dëkk. lu ragal ci ginnaaw ah dañoo ragal ni bu ñu duggaatee ñu la ñu laalaat ñu moo tax ñu ragal des ko dee nga ci ginnaaw rek. ñu ñu ah wa man pour man man am na ñeneen ñu ko bëgg a jox. ay kilifa yu fi nekk ñuñ ko bëgg a jox waaye ñun duñ ko nangu ñun dañuy daw jusqu'au bu dañuy takk suñuy sër woddu takk ba mu dëgër di daw nag ci seen ginnaaw ndax ñu jàppale ñu. man maa ngi tudd Pape Cissé euh, nekk président collectif euh, Mbourkat extension. waaw dañuy dañ dañ ciy andi rek tuuti leeral parce que euh, dafa am loo xamante ni bii tey ci cadre Mbourkat ndax président de la république dafee ñëw fii ci KMS 3 bi. am promesse boo xamante ni da ko defoon population Mbourkat euh, mais depuis boobu ba léegi euh, dañoo gis ni euh, situation Mbourkat dafa gën a dafa gën a problème bi dafa gën a yokku ñu nekk fi ba ba ba ba décembre deux mille vingt et yàlla def ñu ñëw ñu toj fi ay kër depuis janvier deux voilà le vingt voilà deux mille vingt yàlla def ñu ñëw fi toj fi ay kër ah bi ñu fi tojee ay kërit wax dëgg yàlla ñu jóge fii dem seeti pratiquement tous les autorités administratives seeti kilifa diine yi fépp fu ñu mën a jaar rek ñu jaar fa ñu dem fa waxtaan pour que vraiment ñu dimbali ñu ci situation bi nga xamante ni bi tey nu mbuurkat mu ngi koy dund mu nekk situation boo xamante ni situation bu metti la ah fu ñu ci demit wax dëgg yàlla dañ ñuy tegal ay promesses yoo xamante ni bii ñun dañuy yaakaar ni bu ñu xëyee suba sax situation mbuurkat jeex mais dañuy gis ni à chaque fois mbir day gën a pire ba bi le président de la république day ñëw ci ñëw bu mujj bi mu doon inauguré ISEP bi bi le 29 juin bu mu ñëwee ñu kar ko fii ci toj bi wax ak moom mu xamal ñu ne mburkat jeex na saye lépp jeex na lépp jeex na bi ñu paree ñun population mburkat bi sax vraiment ñun ñëpp suñu xel dal na jàpp nañ ni mburkat wax ji jeex na situation bi jeex na ah depuis boobaak léegi gisuñu dara bougé ñu dem vraiment seeti fii préfet waxtaan ak moom mu xamal ñu ni moom it li mu doon def yëpp def na ko ba jël na dossier bi yóbbu na ko ci mu nga présidence euh, dossier baa ngi ci table président kon ñu xam ni bon am na kon avancé bi nga xamante ni moom liggéey bi ñu ko doon sant def na ko ah vraiment ba ñu yóbbu ko ci table président. ñuy ña solution bi président moo ko yor. solution bi président moom moo ko yor dañ koy ñaan. vraiment moom président de la république dañ koy ñaan vraiment mu jàppale ñu ñun waa Mbourkat ndax Mbourkat situation la boo xamante ni cas social la Mbourkat nekk na situation boo xamante ni dafa metti ndax tey bu ngeen taxawee ngeen gis fii ñu taxaw nii tey ngeen gis liñ fi toj fii tey ci ay kër nga gis nit ñi ni ñu dëkkee ngeen gis ñax yi ngeen gis garab yi ngeen gis mool tey jii am na ci ñoo xamante ne tey bu doon tey ay millions la yor tey duñu dëkk fii kon heure bi génn nañ fii ba xooli feneen fu ñu dëkk jusqu'à présent Descos mu ngi fiy dugg di fi toj kuñ ci fekk aussi dañuy nangu sa matériel dañ koy yóbbu boo tëjee ñu fekk ñu dugg fekk la ci biir kër gi loolu yëpp nekk ay situation yoo xamante ni vraiment dafa dafa dafa metti waa dañoo tere tabax te nit ki aussi bu dëkkee ci kër tey nit ku nekk fa nga nekk aussi boo fa nekkee di nga ko defar mënta ñàkk tey nga nekk ci kër goo xamante ni day senn nawet di waaj a ñëw dinga nga rakiste di nga defar waaye soo dekkee di defar bu ñu ñëwee bu ñu la fa fekkee andil la ay fitna ak ay coono kon ñun dañuy ñaan président de la république du Sénégal ak kàddu yi nga xamante ni bii ñun ñu ngi koy wax waa Mbourkat képp koo xam ni mën na cee jote tey bu ko déggee mën cee andi lu ñu mën a jàppalee ñun waa Mbourkat dañ koy ñaan vraiment ñu jàppale ñu. waaw non cest à xam nga tey frustration mën na am frustration mën na am. ndax tey bu ngeen xoolee situation bii yëpp tey jii am euh, mën nañ ni tey frustration mën na am waaye depuis que lépp di di di mën a nekk ñun waa Mbourkat extension ci fi ñu teg suñu tànk fa lañ teg suñu tànk mooy toog fi ñu toog am yaakaar ci président bi nga xam ne moo ñu dig loolu moom loolu moom duñ ko nangu parce que tey bu ñu demee ci suñu demee tey bu ñu demee tey ci ay archives tey jii mën nañ ni tey situation bi tey fu mu jëm mën nañ ni tey ci ay ci ci ay lettre d'attribution moom moo andi situation bi tey kon vraiment tey lii am nii tey Sénégal yëpp ñoo ci war a mën a jàpp fépp fu nit nekk te man dara ci lii vraiment war na cee war a mën a dugal loxo encore une fois le président de la République son excellence monsieur Macky Sall yow la ñuy ñaan ci situation bii nga xamante ni bii mooy mbuurkat ñun waa cees ñu la koy ñaan vraiment nga jàppale ñu. vraiment ba ñu génn ci situation bii. ñëpp seet nañ leen ñëpp ñun fépp foo xam ne rek war nañ faa dem rek ñun wax dëgg yàlla ñu ngi fay teg suñu tànk ñu ngi fay dem di ñaan vraiment pour ñoom it ñu mën ñu jàppale ci situation Mbourkat ndax c'est triste. ndax fii tey am na ci ñoo xamante ni ay jaaykatu caaf lañu woon am ñoo xam ne ay table lañ yor am ñoo xamante ni bii tey vraiment jakarta lañu yor xam nga te jaayante nañu tey ba yàlla def tey ñu am kër kon ñooñu dañ leen a war a dañ leen war a encourager mais pas aussi ñu dugal leen ci cadre filistration xibaar boobu moom dégg laa ci am franchement dégg laa ci am parce que à chaque fois aussi dañuy dégg situation yu mel noonu parce que tey bu ñu génnee ci ginnaaw nii rek gis nañ fi ah, ay chantier yoo xamante ne pratiquement ñu ngi koy tabax te ñun ay logement quoi te ñun ah, vraiment te même zone la ñun xamuñu situation boobu naka la demee mais daal li ñu mën a wax ñun askan waa Mbourkat mooy nañ ñu jàppale. nañ dañu seetaan vraiment nañ ñu jàppale léegi nag di ci di di am foo xamante ni bii vraiment dama fay tëjee ñu ngi sant nag vraiment ñëpp képp koo xamante ni bii rek jaa ngi dugal sa loxo ci dossier mburkat franchement mënta ñàkk dinañ la sant dinañ la gërëm ndax situation bi metti na critique na ndax biñ ñu waxee toog leen ngeen xaar ñun ñëpp dañoo toog di xaar waaye it tey jii fii ñu toll tey ak enjeu fii mu toll tey ñu ngi jëmaat nawet vraiment métti na franchement loolo taxoon tey vraiment ñu woote vraiment pour kàddu yi bëgg président de la république vraiment mu jot ci waaw